ngeen def rek. yéen a ngi ko. ñu jël si tey le délégué. ah délégué de dafa mel ne mi ngi ci biir délégué. tey délégué lañ seet si. délégué moom ngeen seet si tey. ah waa acca bon délégué de moom mi ngi nii de. président de téléphone bee ngi sane rek. Euh, mi ngi sane fu ne lañ koy wooyee ci réew mi ak bitim réew. salaamaaleykum. kilifa gi. délégué Aliou moom ma dénk ak écurie bi. waaw kii moom moom ma dénk écurie bi. di ko baax quartier am gii nga gis nii tey jii ñëpp a ko naw. fii rek moom ngay gis plainte sax bu amee nga dem police ñu ne la acca dellul fan nga dëkk quartier Aliou Ndao ñu ne la dellu bu nu ñëwee tout sa règle ici. je crois que notable yi aussi ñu ngi nii. jërëjëf kii mooy Assane. Assane Assane Sow jërëjëf Papa Assane village Aliou Diakhaté Aliou Diakhaté Papa Diakhaté Moussa Fall. Fall Fall Amar Ba. Ah, ba Ba Ba Ba. ok waaw. kii nag mooy entraîneur Ndiaye. wu xam sa cosaan. Vieux Ndiaye. pratiquement je peux dire que li nekk ci xale yëpp militaire. Mhm. mais xale yi bi ñuy am ay 12 ans la leen jël. ñëw commencé ñoom. mais léegi mi ngi fële booru Tivaouane Pël. li muy def fii li muy def fii rek moom lay def foofu d'ailleurs sax ñaari écuries yi benn la. écurie Tivaouane Pël boobu at xam sa cosaan benn la ñooñu benn licence moom moo am. donc vraiment kii moom euh, yàllaa koy fayal yàllaa ñu koy fayal. waaw kii moom. yàlla moo ñu koy fayal. tey ji boo demee ci maire mu wax la. lu mel nii nga dem ci préfet mu wax la la même chose nga dem ci commissaire de police bi mu wax la la même chose nga ñëw aussi ci ñun ñi muy dëkkandool ñu wax la aussi la même chose ci moom mais nag loolu yëpp su ko mënee c'est parce que ñii ñoom ñoo ci jàpp gis nga ñii amul lenn lu nga xamante ni lii tey ji moom dina ko def te woowu leen gis ngeen même interview bi dafay obligé woo leen ñu teew ñii ñoom ñooy ay notable am tey même imaamu ratib bi sax mi ngi woon léegi ci réunion bi pour ñaanal xale yi moo tax xale yi dañu war a am jom dañu war a am fulla dañu war a am karsa mais aussi dañu war a gëm ñii ñii daal bu ñu leen gëmee fa ñu toll woon ñetti at rek moom lañu def jël écurie bi mag ci écurie yi tey ji suñ leen toppaatee jëlaat lu mel noonu. incha allah incha allah yéen it jërëjëf quoi waa Wassare jërëjëf. si sànni kàddu. parce que délégué. du délégué si ñun papa maam la parce que daf ñoo def moroomam daf ñuy woo di ñu conseiller di ñu xalaatal mosuñu woon am komba fii si ginnaaw raay te ñoo tooguñu si jàq ja ñaanal ñu boobu dama si amoon fierte nag boobu dañuy dem yàlla di ñu may ndam ñuy ñëw xale yi nag ànd ak yar fonk leen ñoom ñëpp waaw ante nag day toll benn moment boo xam ne boo naagoo daagu te ku daagu rek ñu romb la waaw dem nañ ba finalement que pour ñoom ñoom la ñu bàyyi mag ñi wante du ñoom mag ñi la dafa am si loo xam ne cosaan la bul ko bàyyi mukk saa soo ko bàyyi rek mu feeñ ñii amuñu seen fay ñii amuñu seen fay surtout maa nag Malick kii maa ko sonaloon di génnee xaalisam muy def amu si kenn koo xam ne mus na am combat demuma ko fëgg mu génnee xaalisam muy togg muy oto lépp grâce à moom waaw booy nag nañu delloo mbaatu sa ndaala la ñu topp ñi fonk leen te déggal leen surtout ni ñu meloon démb ñu delloowaat ne doonu ñu tus ñu ñu am nañu topp seen ginnaaw toogal toogal demal demal bàyyil bàyyi naa bu ko defee bul sox sonn li ma doon wax démb ak barki démb fi ñu jëm kenn mënu leen téye dañuy egg parce que mbooloo mooy doole ant ni ñu tasaarooyee du ñu am dara ante bu ñu boolowaatee ñoom ñëpp dégg benn kàddu di ko doxe bu sax sonn lu ñu bëgg nañ ko am jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Pikine ginnaaw raay ñëw fii ci gannaaw assemblée général bi nga xamante ni écrit euh, réunion réunion la waa baax ah, ñu dem hmm. gannaaw réunion bi nga xamante ni waa xam sa cosaan defoon nañ ko euh, ñu ñëw nag ci ki nga xamante ni mooy délégué de quartier bi moom mi nga xamante ne woon moo yëkkati woon équipe bi teg ko ci loxo yi ki nga xamante ne mooy Alaaj Malick Ngom mm-hmm. euh, Malick Gningue mu doon koo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb euh, ginnaaw loolu dañuy bàyyi délégué mu nuyoo euh, nuyu mbokk internet yi koy seetaan su ko defee ñu wéyal waxtaan bi léegi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi rafetlu seen teewaay fii. en télévision Wassare eh, alhamdulilah rabbil alamina ñu gërëm nag tout d'abord alaaji Malick Ñing mu nekk fii ci karti bi xale yi bari woon fi trop waaye ma seet ne xale bu baax la ñu yëkkati écrit bi teg ko beneen bi mooy écrit mooy association xam xam jàmm ñoom ñaar lool moom ma jox ko écrit bi Birame Sène ma jox ko ASC jàmm gàcce ngaalam surtout moom xel bu baax la bu am njëriñ la bu jëkk mag loo tax tey bi ñu wootee këram góor jigéen mag ndaw ñëpp ñëw sottante xalaat boo mu yëkkataat écrit bi mu ëpp fi mu fi mu nekk moom def na lépp loolu kattanam seet na ba mu yàgg war na ñëw toogaa ak mag ñi te soxla mag ñi ñëw parce que ku amal njëriñ dëkk bi la loolu moo tax tey ñu toog këram ñun mag ñi nga gis ñu toog fii ak ñeneen ñi ñëwut cottante xalaat pour ñu préparer suñu ginnaaw ba nga ko joxee écrit bi ci yan jafe-jafe nga fekke woon écrit bi ba yëg ni war nga ko mën a jox Malick mu yor ko ak lan nga gisoon ci Malick ba war mën a jël écrit bi jébbal ko ko xale yi topp ci ginnaaw. waaw boobu sa écrit bi amagul. Hmm. écrit bi kii suñu loxo la sosoo moom loxoom. Hmm. sama kër yi ñoo fii ñu gis kale yi ni ñuy defee entraînement bu ama seen seet kër a ngi nii hmm. ñu seet ne fii war na am écrit mu wax ko ko wax ko biram seen ñu réewam fii sama buntu kër ak ku ñu wax ala yi seen yan yàlla ko leeram dafa dafa wàññeeku ki ñu ko sonal ci la bokk. keroog bari woon na ñu toog ay kilifa nag yëkkati yëkkati écrit bi teg ko loxo te nag lépp lu mu mën man koy def waaye nag dafa jot nag lu changement. changement yokkute. yokkute boobu nag mu andi tey yéen ngeen ñëw fi fekk na sax ñun ñu réunion këram ba ba ba dem et eh, en attendant loolu laay am lu ma lu ma lu ma léegi waaw. li njëkk dañ doon gis écurie xam sa cosaan mu nekk écurie boo xamante ne ay xale ñoo fa nekk ay jàmbaar xale yu mën a bëre nekkoon ci ay dynamique victoire yu am solo ñu jékki-jékki gisaat écurie bi wàcc lan la ban erreur la. waaw erreur bi yëpp du mag du ci président bi. écurie bi e, e, erreur boobu yëpp parce que su ma yeboo ne ki ki mbër yi la laay mën a wax parce que ñun ay mag ñi yàgg nañu seetaan làmb yàgg nañ ci moo tax ñu bëgg làmb bëgg sport xam nga man léegi mag na mais du tere su waxtu ñu woote rek man ma teew samay sët sax te lii ñaan ak ñoom parce que la suñ seetee nag li nga xam ne moo nekk ci biir même fekk équipe bi day dox daañ toogaat renforcer ko waxuma ne mu am euh, rilanti euh, tuuti loolu moo tax daal ñun mag ñi gisee ak moom président bi pour ñu préparer leneen pour équipe bi lekk leneen équipe bi du équipe quartier bi rek équipe gannaaw raay yëpp la nag tey waa gannaaw raay président association euh, équipe yi ñëwoon nañ ci réunion bi tey jigéen ñi ñëw nañ ci réunion góor ñi ñëw nañ ci réunion bi pour préparer équipe bi euh, préparer euh, écrit bi pour mu mën a gën a nekkal leneen yokk doolem daal jàppale maa la ñu nga nag parce que nee naa ko toujours yow yow ni ñu jiiteel parce que gisuñ ci moom su ma gisoon ci moom leneen soo toogee fi mu wax la ko kon su ma woowee sax du ma dem moom xam na ko waaye nag man su ma àndee yow nga jub di xale bëgg ba baax bëgg mbooloo bëgg dëkk bi loo am na ànd loolu moo tax gis nga mag ñaa ngi imaam yi tey ñu ngi foon imaam ratib bi sax ñëwoon na tey parce que su ma leen wooyee ñu ñëw bilaal yi ñëpp ñëwoon ni notable ñëwoon ni uniquement pour sukkalaat équipe bi euh, équipe bi pour mu jëm kanam. léegi équipe bi pour mu jëm kanam xale yi yan taxawaay la ñu war a mën a taxaw parce que dafa mel ni taxawaay yi xale yi waroon taxaw ci équipe bi dafa mel ni dafa des. waaw taxawaay bi daal mooy njëg mag mi jig dëkk bi ñu xam ne ne lu ñu doon mag ñu ñoo tax ñu doon lu ñu doon dëkk bi moo tax ñu doon parce que nit nag doo dem ba commencé ak benn kii rek xaw a naago soo naagoo dañuy soo daagoo dañu lay raw toujours loo def lu baax avancé gën def lu baax waaye bu commencé jóg tuuti rek nga yaakaar ne aduna jeex na déedéet mu fekkee tangu faalay bande 65 maa ngi jóge Casamance di seetaan si Faalay Bande 1966 ci Pikine gii. Mhm. Faalay Bande la nekk ñàmme loolu yàgg na. xam ci yu bëri nag bokk mbir yoo xam ne ñoom Doudou Baka Sarr maa ngi ñoom ñoo bokkoon benn service. di sottante ñoom xalaat. Mhm. xam nga mag ñu ne dara ba def ko ñu commencé ba mu yàgg rek mu mel mel ni adduna dafa dafa dafa jeex mag ñi toog xool xool xoolaan ñu wax leneen. duñ leen saaga duñ leen def dara waaye mag ñi am nañ sa euh, am nañ fulla fay dañu toog suñ gisee luñ xam rek mag ñi jóg ak seen kurus ak seen xalaat loolu moom am na. léegi euh, Malick équipe bi nga xamante ne joxoon ko ko euh, mu gis ni war nañu changé waat lu bëree bëri mu ñëw delloowaat la ko da ngeen koy fas yéene delloowaat Malick wala da ngeen koy tegaat ci yeneen loxoom. dañ koy tegaat ci loxoom. parce que rëq-rëq bi mu ngi jógee ci moom. dañ koy dindi purement et simplement moom xam na ko waaye nag gis na ne mu ku jub la départ ni ko ko joxee ba tey noonu la doxalee ak ñun fekkoon ñaa ne noonu lañ def lii duñ fi yëg si su yëgu doon mag ñi tey duñ ñëw moom duñu ñemee woo sax jëm ci li ñëw parce que ñun léegi li ñu lii sun sun kii mooy jumaa ji jàng alquran toog sunu kër waaye soo gisee woo ñuy ñëw parce dafa jub njëriñ bëgg lu baax mais fekk lu loolu suñu waa duñu ñëw kon nag ñun moom ni fas yéene tegaat ci kanam euh, écrit bi incha allah mag ñi de moom leen bëgg ak dëkk bi kon mën ñu ci des waaye ñun moom leen bëgg te yaakaar naa suñ ko bëggee dana am incha allah waaw beneen bi nag naa laal si tuuti loo xam ne xëy na sax bokku seen yu na ngeen ko teg nag dama dégg wal fajri ñuy def débat man sport bu ne laay si wër di def débat ñoom Cheikh Tidiane Gomis ci cage de tout di wax affaire turu arène bi bees biñ euh, nu mu tuddati arène bu bees yooyu dama la ne arène bi moo tudd boppam wala 66 boobu moo wax maa ngi jóg jóge Casamance ñëw seetaan ci làmba diggante la ni jàmme ak ak Fale Bande. école neuf googu foofu la gémboon. foofu ci arène bi. foofu ci arène bi la gémboon. kon arène bi am na tur arène bi Fale Bande la war a tudd. bu ma kàllaan ci tous sportif. Mm-hmm. ak li mu liggéey ki ki ci ci ci ci làmba ji. li mu liggéey ci ci ci réew mi moom Fale Bande boobu. Mm-hmm. mais suñu parti bi su taxawee Fale Bande moo ko taawal loolu suñ kanam la. kon nag loolu liñ dañ dañ ñaax ñaax ko autorités ñaax ko ñëpp yooyu jaru xaccoo jaru da waaye arène bi moom arène nationale bi moom tudde na boppam dëgg la moo Fodé Doussouba ñoo fa nekkoon nag ci kër doo Fodé Doussouba école neuf googu ñoom dañ daan dem foofu mu gemb ñu ànd ak moom kon Falaye Baldé tur woowu moo ko moom ñu mm. yàlla def daal ñu andi arène bi ba fa mu doon gemb bi mu nekk ki di ndey dëgg boobu foofu la doon gemb. kon arène bi li tax mu nekk foofu doo hasard. du hasard du hasard dama foofu la daan gembo ñu ëmb bu muy daan dut ba kasaar. bu muy daan lan li bu muy daan peer bu muy da eh, dama eh, naa leemal eh, ay téeméer te du jëm boobu Fale Bandi foofu la daan gembo bi mu ñëwee këram gi yàggul kon arène boobu Fale Bande. extel boobu Fale Bande kii yoon fekkee dugg ci politique nag suñ ci duggal politique Fale Bande moom moom turoo bien que nag Fodé moo doon magam moo doon léppam te la naan gëmb ànd ak moom waaye Fale li mu liggéey fii ku xam na ko. laa ñaan e, suñu suñu ko mën a may mooy sportif yëpp mooy waa lamba ji yëpp ñoom e, moom moom daal e, mu yàlla yàlla moo xam. ñun daal loolu moom suñ kanam la nag. du loo xam ne dañ koy lambatu. noo gisee fan xale yi euh, waxante yu ñaaw yi ñuy waxante mbër ak morom ba ñu contrat boole leen ñuy waxante wax yi. Euh, ñàkk xam ak li ñu antene waaye yooyu yenn ba seen wenn yu rëy loolu mais soo demee dans l'état ay soixante cinq soixante huit dëgg la lii amu doon mm-hmm. waaye dañoo mayante respect loolu tax su ñu doon bëree dee am xorom. bu soo léegi suñuy bëree à part loolu ñuy wax amul amul sens amul xorom ak mbër yi war nañ moytu déclaration. mbër. war na mooy déclaration. ama seen sama doom ku baax toog na fii ci saal wax ko loolu du doo gis mu mu wax lu ñaaw. mbër su daanee dafa war a am limite bu mu wax suñ ko daanee war a am limite bu mu wax. tur ëllëg waaye taxaw ci télévision bi di wax ba tu tudd sa waajur di kii di fëgg ak wala xam mm, fonkatoo mag ñi da ngay wax ci suuf doo ci mën dara benn sëriñ mënu la ñaanal sooy tàngal magu euh, te xolu euh, mag ñi wala say supporter mooy euh, tàngal bi mooy lan yëgoo leen bu nga rek léegi yaa ngi leen romb isa tisan fu exporté yu njëkk amut bala ko xam tey Fala Baldé moo magul waaye fu ma gisaan ñaareelu xol may nuyu kon nag loolu liñ lañ koy dénk mbëri di koy dénk journaliste yi ñi ciy wax parce que jamono ji léegi yooyu ñuy def dañoo yaakaar ne dafa wàññi xoromu làmbañ face à face yooyu dafa wàññi xoromu làmbañ mbër day gën a gisanteeg moom suñ tasee mu neex waaye mbër mooy ñetti fa ñetti ngeen taxaw di wax ci télévision ñu yaakaar ne loolu yëpp xaalis rek la te xaalis fu mu dugg rek fu mu defar mu yàqu xaalis lu mu defar mën na ko yàq yow yëpp loolu rek la su doon suñ sago day mel ni comme mu njëkk duñ ko mën nag nga xam ne day da nga seet bi ma jóge Ziguinchor falay bandi lan ni jama di bëré fii dafa mel a mel ni sama fit moo ci nekk oto laa jël ba fii suñ ko nag moo susoog stade bi mu nekk lu rëy ma doon ko la ñëpp ñëw loolu ba tey du dañ suñ xol yi waaye niñ delloo si combat boobu mën nga ma ko euh, gën a gën a fàttali parce que ñun comme fekke wu ñu jamono jooju lan nga gisoon ci père Falaye Balde diggante combat boobu lan moo la ci gënoon neex lan moo la gën a marqué ci combat bi ba tey nga euh, li ma ci gën a marqué mooy Falaye dafa teeyoon Falaye dafa amoon discipline yëgoon ñépp teebul kenn ya nga làmba jooju fekk na lenn ñaan daan na Falaye Balde ñaari yoon. Falaye Baldé daan ko benn yoon ñooñu làmb yi dañ koy tëggee fii Pikine tali wu bees. lan li nga am ci déclaration bu rafet la mu ne bàyyi leen Falaye naa ko fekk dëkk bi fi mu dëkk ma daan ko ma xam ne ko mën ma daan ko ñett yoon moom daan benn yoon. Mm-hmm. Falaye Baldé ne ci biir wax incha allah victoire bi fii lay des. Mm-hmm. keroog lan ni jaam mi ngi mi ngi yë duggul bunta bi mi ngi yëgee ci koñ ba te koñ ba la yëg fa garab ga nekk la yéeg taxaw ba ñëpp a gis ko mu tëpp. jóge Thiès Fale Bande boobu ñu ngi tabax cinéma wax mu jógee Mars Seng foofu ma lay wax ak ñooñu ñu teg ci ak seen dënd ñu gis ko drapeau yi du du subaa jiitu ñu ngi toog. Mm-hmm. boobu tax dafa sedd boobu géej waay amut. waaye bañ sëggee boobu Adama Jaxate moo ko doon roppote ku ñëw Adama Jaxate ak Alaaji Maada Pend Seck bañ demee bay bëgg a leewaatu at bi ba naar suufle Adama Jaxate ku bëggoon falay la xol bi jaam ah, ah, ah yoon Alaaji Maada jël micro bi na ko jërëjëf Biram Kumba Daadu yaa def noonu ah tey El Hadj Kere Madi Kere moo reportage ak nañ def ak na faa def ba landi ñëw ñu face à face du suba arrière ba toog ci cummekaay te ñoom Robert ñëpp ñu nga for ñu sëgg. Mm-hmm. abi bi suuf li nga ba dafa amoon technique. Mm-hmm. xam na la ni daan ko ñaari yoon. Mm-hmm. jël na leçon. te mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bëri ci ci ci dëkkam dëkk ne loo mën a gis ak ñii day lekkatu ànd ak yow ñii di yuuxu ñii di kii waaye ba lan ne nag cëpp ne day dóor faale faale estiwee ko nii rek la daan def ñu ko wax su lan di demee ci suuf mu jàpp ko su ñëwee ci kaw mu jàpp noonu la ko jàppee te faale comme jàpp bu ñu ne faale band jàpp na ko ñu jóg la ñibbi noonu la ko def yëkkati ba ci kaw daane Pikine tal bu bees. suñ kanam keroog keroog xam nga duma def bataa laa demoon bi ma jógee Casamance bataa laa demoon hmm. jënd fa dàll bu bees tëkk dàll keroog fa fa la des waaye jar na ko. Hmm. loolu moo moo am gu. bu mbay gay booy bambara et yooyu yëpp fekke nañ ko. jii ci làmb ban gis jëmmi Falaye Baldé doomam. doomam. la jël jël na ci moom ñeme. Mm-hmm. jël ci moom discipline. di mm-hmm. nga ñaar yooyu mbër su yaroo lu mu am ko. Mm-hmm. am ñu ko fi njëkk a feeñ. mais moom rek ngay dégg. Kale Baldé noonu loon Fodou Diouba mi ngi fi woon Barabara mi ngi fi woon Cheikh Mbaba mi ngi fi woon te ñoo xaw a am jamono. Cheikh Mbaba moom biñ ne ko dañ lay boole faale moo ne ah man de fas naa yéene man lim yii di faale daal man du ma ci bokk. parce que man dama bëri faale Cheikh Mbaba. ñoo bokk dëkk Mbour. jamono yooyu ñu mën a bëree ak ay technicien waaye ku ci meloon ne faale ban la jàpp na koo ban la jàpp na ba muy yëngal la ba sa taatu yëngatu cokkoo rek ngay gis sa tànk eh, kii. Ama Baldé jël na combat bu rëy mu Modou Lo. ah yàlla baax na Modou Lo nag télé bu mën a bëri la ku yarul rek dama ne. soo ñemee yaru respecté mag ñi respecté ses supporters respecté support adversaire yi foo jaar da dem mm-hmm. muy football ba muy làmba ja muy boxe ba ñett yi soo ko defee foo dem da ngay dem ñëpp dañ lay boole bëgg mm-hmm. waaye soo demee ba say supporter sa euh, soo leen gisee ñu ñu doo dem fenn soo yemoon na ngay doo dem fenn bëree du Talla Bandé keroog ba mu ba mu njëkk a bëre duut ba kasaar ci stade ba yàgg na. keroog laa njëkk a seetaan euh, euh, euh, combat ma yaakaar ne Fodé lay kii moo ëpp kii laa ilaaha illa ndeke Falaye Bandé lay bëreet. Fodé di arrière noonu doon ba toog Falaye Bandé taxaw man sama xarit bi Talla man ah, waaye kii kii day lekk Falaye Baldé kii. te boobu euh, Doudou Bak Sadio ñoo bokk sares waaye mën na ko Doudou ne sarax ah nga xam ne réy ak tuuti bën a bëri du benn. xoolal man li lay wax euh, ba yem ni ñey waaye sa carrière du yàgg. mbër yu njëkkee ñoom baaboo lii baaboo bii tey mbër yu bari tey tey moo leen man xale Balla Gaye numéro 2. Balla Gaye numéro 2. moom itam ñoo ñoo ko yar fii ci Pikintal bu bees bi moo kii ñoo yarandoor moom Malick Ngingue mi ñoo bokkoon benn koñ. ni xam ci mbër mbër daal li ma leen dénk da ngay nekk sportif bëgg si supporter bëgg support faale band supporter adversaire da nga yaakaar ne euh, fa fa fa la def te loolu bu kente am cër kon yal na yàlla dimbale seen télévision bi yan avancé bu baax da ko daal ci directeur ak ak ña toppat moom ñëpp di remercier nag encore Malick Gningue di koy gërëm di koy ñaan yàlla yéen ñëpp lay wax xale day yëg mag mag dafa yàgg ak yàlla te xale day soog a commencé ak yàlla loolu waxu olof la mag am na fu mu jaar déggoo am na mbur mu ne ku fa jaar takkaban yàggal yàggal yàgg fu ma jaar ko fa takkaban parce que fa mu jaar la mbur mu ma ndaw mi jaaral gut day na mu jaar fa na mu takkaban mu daanu kon loolu wax uh, uh, bakku bakku bakku uh, num ni man daal li may wax rek yar yar mooy discipline mm-hmm. koo gis def ko sa bopp koo gis wax ko ne moo gën waaw di gërëm reporteur yëpp nag ay eh, Bécaye Mbaye ku ko topp lu baax rek lay wax ak et cetera et cetera et cetera ah, mooy mooy defar làmb waaw lii rek laa amoon lu may wax waaye suñ président bi daal moom ni fas yéene mu nekkaat président ci kàttanu yàlla dëkk bi moom ni décidé parce que jub na jubal na ñun nag ko jubul duñu ànd ak moom su jubuloon du ñu may woo fi ma ñëw fii mu toog ma toog kon du dem këram am ko réunion mm-hmm. waaye dafa jub jubal te xam mag ñi may leen teggin ku ko def rek dem loolu rek lay wax ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa dëkk bi imaam yi tey imaam ratib sax ñëwoon na ci réunion bi moo ubbi ñaan ñu tëj mm-hmm. bilaal yi ñu ngi nii magu dëkk bi ñu ngi nii encore mm-hmm. kon loolu kenn mënu ko fay waaye nag ci moom la ngeen jàppale ñu nag. ngeen jàppale ñu. ngeen jàppale ñu. loolu rek neen amoon lu ñu wax ñu ngi leen di ñaanal yàlla yéen itam ngeen liggéey ba def comme ñun yàlla jàppale leen. musal leen ci musal musal leen ci ci balaa may leen fu nu gudd ak mujj rafet yàlla barke leen barke seen njaboot bi xormati rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim